sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas taala wa barakaatuhu. ñu ngi yëkkat suñu kaddu. ci ndigalu Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadou Mountakha. di ñaan mu yàgg filool lool te ànd ak ba suñ borom mu kattanal ko. ba mu àggale mboolem naal yi nga xam am na ko ci liggéey Serigne Touba. ci ñu ko bëggee di leen gàtt yottali jottali ay nuyoo ak i cantam ak ngërëmam jëme ko ci bokk yëpp ak bokk taal bi murid yëpp yëkkati ndigal nag jëme ko ci sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall mooy sëriñ Amdi mu sëriñ Modou Mbenda mi nga xam ne yàlla def na tey moo fi jëmmi maam Cheikh Ibrahima ñu koy ñaanal moom ak rakkam yëpp ak ñu topp jigéen yëpp kàttan ak wér ba mën a liggéey Sëriñ Tuubaa ndax ñoom seen kàddu yëpp li ñuy ñaan mooy yàlla na jekku ndigal kon loolu mooy foo leen fekk rek jekk nañ Cheikh Mouhamadou Mountakha yónni ba ci moom ndigal ndigal li nag weesuwut barab bi ñu tuddee gaar bu mag te yaakaar naa diggante daaw ba a ngi dégg la fay xew ci loo xam ne dëppwut ak ni dëkk bi war a mel sëriñ bi nag jox ndigal sëriñ am di jox ko ndigal ne ko bu àjjuma jàmm ñu dem fa buñ demee xool la nga xam ne moo indi jafe-jafe ba lépp ñu dindi ko bam set wicc li tax mu taamu ko ci nag bari na ndax wóor na ku ne ndigal jógee ci kër Sëriñ dem ci kër tan rek la fa fekk mm-hmm. ndax ñoom amuñu tar dañ gën lu gën a sëñ bi ba ma ci yónnee itam loolu sëñ am di wax dana ma ndigal lu jógee ci kër sëñ Tuubaa jëm ci kër Cheikh Ibrahima jëfi ndigal la képp lay am ne ko sëñ bëggee ni lay am kon sëñ Saliou yow mi nga xam ne yaa ak sa rakk yëpp ak sa doom yëpp ak taalib yi yéen a fi teewal bi sëñ bi yabal leen ngir ma jotle kàddu yi ba ñëpp xam ne ndigal lu bàyyi ko sëriñ bi kon loolu la ko ñëpp bàyyi xel xam ne ajjuma jàmm la yéen la ko sant ngir ñépp ànd ko yéen waaye xam na ne bu ngeen jiitoo rek lépp na mu bëgg dana ko ne amee kon nag ñu ngi leen ci ñaanal la seen maam ji jaayante woon ak Serigne Touba yàlla ne ko ci Serigne Touba defal ndax xam ngeen ne kat dëkk bii di fu sëriñ bi masa sanc fu ne xam ngeen ne lii tey ñuy def seen maam moo ko fi jëkke mooy bu kër siñ Tuubaa moo ko fi jëkke mas sama dégg ci sëriñ son yi bu wax ne mas naa romb ci biir kees sëñ bi gis ki ñuy wax sëñ Bànda Sow bokk na ci kër gi nee na Cheikh ci kon nag lii leen siñ bi defaat ci biir la tàbbi xam ngeen ne at mu jot tam bu màggal Tuubaa gi jub si ak bu jàllee ndigal li lépp it ci seen loxo la koy tegaat waaye saa su ci tegee dana da ko def ni mu ko bëggee kon nag mi ngi leen ci ñaanal la Serigne Touba waxoon ne xam ngeen nu may xamee ne li ma sant def ngeen ko wala dee ñu ne ko dee mbàkke mu ne waxtu ma sante nit lëf day am lu jug ànd ak moom bu jigéen ndigale nag mu dëkk ak moom bu jëfee ndigal nag day dellu si waat ci man dama ne dem naa waaye mu fa ne yéen nag wóor na kon loolu du kon la Cheikh Abdou Lahad waxoon ne ñaari kër yi dafa am bañ mooy kër Sëriñ Tuubaa kër Cheikh na yaar yëpp daje na kon nag yàlla nañ ci daje tawfeex te xam ne itam nag Sëriñ Tuubaa bi muy sanc dëkk bi daa fekk fu dara nekkut mu sañc ko waxoon ne itam yaa rekk tax ma sanc ko mooy daw nit ñi ak daw li nekkul ci daw li nekk ci loxo nit ñi waxit na dëkk bi itam ku fi sam xel indi wu saw xel dina defee ni kon nag loola moo màgg tey ba dëkk bi agsi fii mu aksi waaye xam ngeen ne tawféexu suñ borom am na ci bu baax ndax dëkk bi nu rëyee nekkatul ab dëkk am réew la bu fekkoon beneen dëkk bu mu doon saa soo xëyee da nga dégg mbooloo mu faatu kon nag loolu ñaaru Sëriñ Tuubaa mooy li nga xam ne moo ko gàttandu moo ñu gunge waaye li ci suñu war suñu waru gar nag faaw ñu ko def moo tax Cheikh Modou Mountakha wax ne li ko fi bàyyi mooy wattu ak sàmm li muy wattu ak di ko sàmm nag mooy taalibe Sëriñ Tuubaa yi ak dëkku Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa loolu képp doon ak bëggam kon nag lépp loo xam ne gis na ne nekk na fi te wuru fee nekk fa yéene ne loolu lépp mu jóge fi comme dama ko waxee woon fii yéen nag sëriñ bi nee na ngeen xam ne. liggéey bu door a tàmbul la waaye am na yeneen liggéey yu ne toll yu ko ëpp ci biir dëkk yoo xam seen loxo la ko fa seen tëg bokk na ci corniche bi ñi fi tabaxi place ñëpp nañ xam ne fu ñu war a jóge la ndax ab corniche du fu ñu war a dëkk ndax sëñ bi dafa natt ay pàkk ay junni junni junni junni pàkk te amu ci benn pàkk boo xam ne dañ koy jaay ku accès dañ la ko jox ngir jëm Sëñ Tuubaa koo ko jaay daal mooy ki nga xam dañ laa mooy pàkk nga jaayaat ko kon nag corniche bu fu ñu war a dëkk te xam ngeen ne Touba mi ngi màgg te da tax suñ kilifa yi fi jëkk yi fi yi fi newoon tàmbalee ko ci Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo ko jëkkoon a ku gis mbedd yi ni mu ko yaatalee nga xam ne xamoon na fi dëkk bi jëm si. cent vingt bi nga xam ne Serigne Saliou moo ko fi defoon itam xam ngeen ne ñu bari nga dëkk foofee ci li ñu war a sekkar loolu nag sëñ Abdou Lahad Ka nga xam ne moo jiite commune bi. mi ngi koy saytu ngir xool yi nga xam ne jaaduwut te ne fa yëpp bu noppee ba liggéey bi jeex jàmm sëriñ bi dana ma yónniwaat ci sëriñ bi ma jottali ko ndigal la ci topp ndax sëriñ bi nee na bëgg na daal bu soñoon dëkk bi xar kanam bi dëppoog dëkk ko si dëkku sëriñ Tuubaa waaye nag fu neex waay dëkk fu neex waay teg dëgg la nag dëkk bi day dëkkub yërmande yërmande ji moo tax mu agsi waaye lu yërmande ji bari bari nag nit ñi kenn wërta xool sa njëriñu bopp bay loolu ñëpp te am na ci bu fa àggee foofu lay àgg dana mu ñu sàkk mbir yëpp kenn dootu amati foo jaar léeg nga jëm ci barab bu gàtt boo xam ne yoonoo dana xat-xatin boo xam ne ndax njaay yee nañ koy tegere ku fa jaar da xam ne lii du lu jëm kër kon loolu lépp itam lu ci war a tege la loo xam ne sëriñ bi ci seen loxo la ko fa seen teg ngir ngeen sàmbal ko ko ci dëkk bi ngir wóor na ko ne bu ko tegee tegee ci seen loxo rek na ngeen ko na ko bëgg da ko dana ko ne amee kon nag ñu leen di sant bu baax leen gërëm ndax yéen xam na ne fu ngeen toog rek xaar ndigalu siñ Tuubaa moo leen fi bàyyi kon incha allah bu duggee li jàllee jàmm yeneen yi ci war a topp yëpp dana ñëw leeral leen ko bu ko defee ba dëkk bi setaat delluwaat ca ne ko borom bëggee ndax xam ngeen ne kat bari na fi naqari sëriñ bi li ko fi naqari la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek amu ci lenn loo xam ne moom moo ko tere lu suñ borom tere la rasulullahi digle ko Serigne ñëw yeesalaat ko moom mu fàttali kon nag loola xam ne nañ xam ne dëkk bi dëkkub lislaam la dëkkub Serigne Touba la am na wor ma yoo xam ne noonu la ko ñëpp war a maase jox ko war ma jox loolee nag Serigne Touba foo wax ne bii di ayaari bilaay bu bu soñoon njaboot gépp dañuy jindiku te kenn du leen dóor yar ndax Sëriñ Tuubaa moo ko bëggee noonu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon naa ko fi bu yàgg daa waxoon nit ne ko xaadal wara noo koy bil adabi noo koy firee mu ko xaada woo mën na alwara mbindee bil adabi ci teggeel mu ne ko bil adabi ca nañ ma ne moo sëriñ bu soñ du xo du xawi suturus kenn waaye nit ñi itam nag nañ xam ne lu yàlla tere rasulullah tere ko Sëriñ Tuubaa tere ko loolu képp koo def itam lor képp ga ci jële te bu soyoon kenn du loru kon nag xam na ne fee marché ba xew ñàkk sécurité ga bari dafa te ñàkk sécurité kat fu mu tàbbi nit du tere jaamu yàlla moo tax suñu borom bi wax ci alxuraan ne falyabudu rabba haazal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min xawfin ngeen xam ne ki nekk ci njàqare ki nekk ci njàqare du am teewlu mën a jaamu yàlla moo tax ngeen li ñu tuddee salaatul fi sax ngeen di ko gis kon sécurité mooy la war a jiitu fem mooy la war a jiitu am na loo xam itam sëriñ bi fàttali woon na ko fi sëñ bi laat xam naa na ko topp xool ko yëpp loo ci gisate nga ànd ko kilifa yi nga xam ne ñoom la ko sëñ bi teg seen mooy ñi ñi yar xaj yi ci biir kër yi am na ñu dem ba àgg ci wax ne dañ dajale ay xar sax di leen sànni ci mbedd bi ñu daw te xam ngeen loolu du aada ju rafet dëppoot ak diine dëppoot ak dëkk bi loolu lépp nag sëriñ bi wax na ne la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ne sama bakkan la ci teg ñaar mooy itam fas yéene fas na yéene ñeen xam ne ndigal lii mu joxe de ñi mu ko teg seen bakkan wóor na ko ne seen bakkan lañ ci rek kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey